mbokk auditeurs yi jër ngeen jëf ci déglu bi ngeen di faratal di déglu bu vendredi waxtu wi su jotee ngeen di déglu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé amaat mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur Massamba Thiam moom docteur Massamba Thiam mu nekk spécialiste des maladies du cœur ak itamit des vaisseaux waaye mu nekk ancien interne waaye tamit nekk chef de service de cardiologie ak administrateur général docteur Massamba Thiam ñu ngi lay wax jërëjëf ci nangu bi nga nangul ñu suñu invitation bi waaye tamit di la wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. waaw bonjour maa ngi leen di gërëm ci invitation bi ma defal. parce que ñun suñu role mooy faj maladie mais tamit li ñuy informer maladie dafa nekk ci loo xam ne ci charte médecin yi la war a bokk. parce que mhm. malaat bi il faut que toujours nga koy informer. Mhm. Euh, suñu réew li ci gën a ëpp jafe yëpp mooy nit ñi duñu xam da ngay feebar sax garab doo xam feebar bi mu doo xam garab bi nu muy jur. Mhm. donc médecin yi war nañu chaque fois bala ngaa consulter kenn di ko jox ay war nga ko expliquer lan mooy feebaram lan mooy lii léeg lii nga xam ni bu ko deful li ko ci fekk dina ko mën a xam. mais souvent li ñuy wax ignorance boobu mooy indi problème yu bari ñun fii suñu réew yi bi donc vraiment dina am mbégte toujours ci émission yoo xam ni pour patients yi la pour jom leen gindali gën a leeral lu bari. Euh, mu mel ni docteur euh, Massamba Thiam euh, fi mu tàmbalee rek la ñuy daal di dooree ñun tam suñu émission bi nga wax lu am solo mooy li nga xamante ne moom moo di sens de l'orientation waaye tamit gindi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di patients yi docteur yaa ko wax ci say biir wax mu mel ni Sénégal suñu structure hospitalière yi dañu am li nga xamante ne moom moo di problème accueil ak orientation lan nga jàpp ne moom moo jur loolu de manière générale. waaw loolu mën na am ay excuse mën na am yoo xam tamit amul excuse xëy na peut-être dañu am débordement débordement mooy nombre de personnel bi wala recevoir maladie dañu faible par rapport ak demande bi mhm. loolu mën na leen jox ñu wax circonstance atténuante mais même loolu tamit c'est pas une raison nit ki moom boo xasee bu jël engagement di def sa liggéey da nga ko war a def ni mu gën a muccee ayib at fu mu mënti tool donc doo ko excuse boobu kooku taxawul mhm. lu mu mënti metti metti da nga war a def liggéey normalement muy problème mu accueil muy problème orientation muy problème communication ku nekk bu ñëwee nga jël sa temps nga expliqué ko ku nekk xaar. Mhm. mais loolu rek la mais amul excuse pour ay parce que dañu débordé y a de malade loolu c'est pas une raison. Mhm. donc loolu dañ ko war a seetaat war ci ñaaxaat nit ñi ñu war a xam ni ñuy accueillir patient parce que ñoom xamuñu ni malade yi ñoo leen fa teg. Mm. c' est valable partout boo demee banque tamit ils ont le même comportement xamuñu client moo leen fa teg Sénégal moo mel noonu. c' est le commun des Sénégal te loolu li ma yàgg naa ko wax ngay dem sax banque. ñu war a ubbi huit heures huit heures et quart te ñoom bu heure bi jotee ñu tëj bunt yi leen mm-hmm. loolu yabaate la. avec la donc nit ki fu nekk fu la yàlla teg da nga fa war a liggéey def ngir yàlla def sa liggéey nu mu mm-hmm. nga xam ni nit ki nag. nit nit rek la mën na juum mais nga def loo mënti mën pour nga xam ne satisfaire la clientèle que ce mm-hmm. soit muy patient loolu mooy objectif nit ku normal loolu moo rek ndax jàppaloo ne ci seen formation dañ a a mettre non loolu peut-être dans la formation mun nañ ko ci inclure mais nit ki yëpp ci éducation la li ngeen ñu war sa li ñuy éduquer sa seen kër. Mhm. sa comportement boobu mooy traduire partout. comportement boobu dafa am parents yi rôle bu ñu ci joué société bi am na ñu rôle boo jógee seen kër da ngay dem école école tamit am na éducateur rôle bu ñu waree nit ki ci boppam problème problème problème comportement la jeune sénégal yi am actuellement. Mhm. mooy dañu raté ay étapes yu bari. parce que da nga koy gis da nga gis ay quatre personnes ñu postuler benn poste nga gis seen kii nga xam ni différence bi kii koo gisee xam ne kii yar nañu ko këram. Mm-hmm. kii nga xam ne kii yaruñu ko këram. donc loolu ci kër gi lay commencé. Mm-hmm. parce que nit ki boo amee yar ak teggin si sa kër sa waajur boo demee sa liggéeyukaay dem moom moo lay topp foo mënti dem moo lay topp mais boo ko amul foo dem mu topp la. Mm-hmm. donc c' est vrai que formation baax na mais loolu nit ki ci yar éducation de base c' est fondamental. Mm-hmm. waaw euh, mu mel ni problème éducation donc moom mooy posé wu ci yenn euh, structure hospitalière yi euh, donc docteur Massamba Thiam dañuy daal di dugg ci li nga xamante ne moom moo di waxtaan wi ku wax maladie du cœur ak des xel dafay dem ci li nga xamante ne moom moo di hypertension artérielle mu nekk jàngoro boo xamante ne daanaka li muy laal ci doomu aadama jéggi na dayo tey jii rek pour. tàmbalee boo ñu doon wax hypertension artérielle lan nga ñu ci mën a wax ci misaal. waaw hypertension artérielle dafa nekk feebar boo xam ni li ñuy wax facteur de risque cardiovasculaire c'est-à-dire que moom du indi cardiaque. Mm-hmm. mais moom ci li ëpp li indi ay complication complications cardiovasculaires mooy kër ak vaisseau malheureusement vaisseau am na ci bopp mooy boo amee complication lay joxe AVC vaisseau am na ci cœur boo amee problème day indi crise cardiaque. vaisseau am na ci rein boo amee problème day indi insuffisance rénale ñëpp dégg nga insuffisance rénale mm-hmm. jafe-jafe yu muy indi mën na indi tamit yeneen tiwo fu mu mënta jëppi tànk yi mu ne donc hypertension dafa nekk un facteur de risque puissant et important ba xam ni dafa law ci àddina bi mun nañu wax pour importance am ëpp na milliards nit yu am hypertension ci àddina bi. Mhm. mais malheureusement milliard boobu peut-être boo ci jëlee fukk ñetti ñoo ñooy faju normalement ñoo jël traitement normalement ñoo jaar ñaar normalement donc juróom-ñaar yëpp bu ñu leen toppul dañuy am jafe-jafe. Mhm. loolu moo tax mu garaaw. Mhm. waaw surtout suñu réew yi nga xam ne nag ñun eh, on est des pays à revenu faible dafay fekk nit ki nga xam ni bu fi dooleem nekkee digg dooleem dëgg mu dal ko. bu ko dalee mënul koy jafe-jafe mu ne la par exemple AVC wala insuffisance mm-hmm. moo tax ñu war aar feebar boobu pour mu bañ a indi ay jafe-jafe. ndax mm-hmm. loolu moo tax hypertension c'est très important. te mënuñu xam à peu près ñun dans nos pays là à peu près ñun dañu am ay statistiques mais yaakaar nañu foo gis euh, fukki sénégalais. Mm-hmm. ñaar fukki bu ñu amee 40 ans am nañu tension xam nañ ko wala xamuñu ko. loolu moo tax mu nekk lu am lu am solo. Euh, le fait que nit yi bañ a xam euh, jàngoro boobu est-ce que dafay firnde que ne hypertension artérielle dafa bokk ci ay jàngoro yu ñu duppee donc ay ay tueurs silencieux. waaw d'ailleurs loolu lañ koy wax sax tueur silencieux la parce que tension mën nga am tu doo ko yëg bi nga koy njëkk yëg rek muy ni jafe-jafe alors que boo xamee jafe-jafe buy wës na mbuus. Mm-hmm. donc tension en général lan moo koy indi soit. booy dem mag loolu dafa nekk lu ñuy wax vieillissement loolu pratiquement boo demee mag ay soixante ans soixante dix ans ba quatre vingt ans boo fekkee fukki nit genn wàll gi yëpp am nañu tension. Mhm. loolu c'est un vieillissement c'est naturel. beneen cause bi gën a fréquent c'est héréditaire mooy yow sa papa wala sa yaay dañ ko am boo amee ay quarante ans wala trente cinq ans jëm kaw mën na la dal. wala tamit parfois mën na la dal comme ça de manière comme ça spontanée donc dafa nekk feebar boo xam ni. mën nañ ko aar mais mën na am na loo xam ne mën na am na loo xam ne boo ci doxee dinañ ko mën a aar par exemple su fekkee danga nga am poids boo wàññeeku dina la yéex a dal boo jul lekk lu am xorom dina la yéex dal wala boo def exercice bi dina la a dal mais am na kaa yoo xam mënoo ci dara parce que da koy donn et ci gën a garaaw mooy tension mën nga ko am ba am ay chiffres parce que tension ñun li ñu koy définir mooy ki nga xam ne boo nattee mu nekk fukk at ñeent at juróom-ñeent mu dépassé ko mais de manière permanente nag waxuñu la mu yéeg di ñooñu boo ko amee de manière permanente da nga war a jël traitement jël traitement commence wul par jël médicament jël traitement bu ko médecin bi nattee nattaat ko bu wàccul ci lay yool commence jël traitement donc traitement bi c'est obligatoire mais ça commence pas forcément par des médicaments mm-hmm. loolu moo tax mu garaaw mm-hmm. te boo ko traité wul foo jaara am ay jafe-jafe mm-hmm. euh, est-ce à dire soo ko xasee ba am ba commencé jël ay médicaments médicaments yi dafay nekk loo xamante ne à vie la wala d nga non traitement bu ñu ko diagnostiqué médecin bi wóor ko hypertension la c'est chronique c'est traitement à amul dellu ginnaaw. Mm-hmm. mën na changer ay médicament nag parce que effet secondaire wala léegi lii wala mu am leen loolu dal diggante bi mais hypertension artérielle bu la amee confirmé c'est traitement à sa dire sa ngir dund amul bàyyi parce que booy bàyyee garab bi mën a toog ay fan ay weer doo yëg dara nga xëy suba rek mu yëgaat donc c'est un traitement à vie loolu yi xam ko mm-hmm. mais nag. il faut pas que médecins yi juum parce que am nañu ay moyens yoo xam ne jumtukaay pour confirmer que yow sa hypertension c' chronique et c' permanent. Mm-hmm. donc donc fekkee médecin bi leeru ko mën na la yóbbu ci spécialiste moom dina am appareil mm-hmm. am courbe dina xam ne yow mii dafa nekk loo xam ni lu wér la. Mm-hmm. te loolu donc amatul lu amatul werante. loolu moo tax nag avant nga koy commencer traitement il faut nga wóor diagnostic bi boo ko diagnostiqué moom il faut nga traité. diagnostic bi comment ça se passe. non diagnostic bi ñaari façon la soit patient bi moom dafay yëg dara mu dem gisi médecin médecin bu ko xoolee tension bi dépassé chiffre mi wax léegi wala parfois médecin malade malade du yëg dara dafay benn visite rek ñu vérifier tension bu dépassé chiffre donc wala euh, moom peut-être dafa am terrain familial bu nga xam donc ñett ko yooyu daal moom am soit moom yë dafa yëg dara mu dem consulter wala médecin bi découvert de manière fortuite. Mm-hmm. lu en général noonu la ñuy hypertension artérielle. Mm-hmm. waaw ah. euh, euh, docteur Massamba Thiam ma bëggoon rek nga wax ñu ci ban chiffre la ñu mun a sukkandikoo pour wax euh, nit am na li nga xamante ne moom moo di tension artérielle. waaw chiffre boobu dañ ko définir peut-être plus ou moins arbitraire. Mhm. mais mooy cent quarante quatre vingt en général mais léegi am nañu ay jumtukaay yoo xam ne sax dañ koy wàññi. mais quand même il faut rester toujours chiffre yi nga xam ne optimal. Euh, chiffre boo xam ne c'est optimal parce que parfois am na yenn jumtukaay yoo xam ne ils te disent que mën nga gën a wàññi. Mm-hmm. par exemple boo defee li ñuy wax enregistrement sur vingt quatre heures moins de euh, au delà de cent trente cinq mën nga hypertendu mais man damay rester toujours classique mooy vraiment quelqu'un qui une hypertension dépassé mais bu amul yeneen feebar parce que mun nga am yeneen feebar mën nañu gën a agressif am quelqu'un qui am diabète boo amee même cent quarante et un c'est pas normal. Mm-hmm. ba cent quarante neuf parce que ko amul jabet mën nañu tolérer yenn chiffres yi parce que tamit loolu chiffre bi rek du important dafa am yeneen éléments yoo xam ne dañu koy jël mm-hmm. ndax moom dafa am poids dafa am jabet dafa am cholestérol wala dafa am hérédité yooyu tamit day day jox importance coefficient ce bi ngay jot. Mm-hmm. quelqu'un ku amul dara am cent quarante quatre vingt nga ko bañ a traité. il pèse euh, soixante dix kilos un mètre quatre vingt du toox amul cholestérol amul sucre mën nga non da ngay wàññi xorom nga surveiller nga def sport. Mm-hmm. mais quelqu'un qui est diabétique Euh, papaam tension moo ko rey yaayam tension moo ko rey boo amee cent quarante et quelque doo xaar da koy jox traitement. Mhm. donc dafa am yeneen éléments yooyu tenir compte du chiffre rek. Mhm. Ah. mu mu mel ni traitement bi kon kon dafay dépendre ci degré maladie bi. maladie bi ak yeneen maladie yi nga yi nga am. yi ngay traîner yi ngay traîner loolu la. Mhm. quelque on traiter facilement quelqu'un ku am yenn âge bi par exemple am yeneen facteur risque mooy diabète wala cholestérol wala wala wala leneen ak leneen. wala moom ay antécédents familiaux kooku dañ koy traité facilement. doo mm-hmm. xaar ki nga xam ne nag dafa am tension chiffre yi isolé rek kooku mën nañu patienter. Mm-hmm. ça peut mois trois mois six mois un an avant ñu koy traiter. Mm-hmm. donc loolu dafa ci am solo. waaw euh, euh, docteur est à dire que ki nga xamante ne dafa am li nga xamante ne moom moo di hypertension artérielle ak euh, dafa war a jël tension moom vingt quatre heures sur vingt quatre. non ki am hypertension artérielle dafay seet médecin médecin moom moo koy suivre moo ko jox traitement. Mhm. jox ko ay conseil conseil moom c' est pour tout le monde mooy un xorom da nga koy wàññi. Mhm. deuxièmement da ngay jéem a wàññi sa poids. troisièmement da ngay jéem a def activité physique. léegi normalement tension bi bu normalee mën nga jëm de manière périodique ngay consulter il est conseillé ñun ñu nga xam ne spécialiste ñi. malade bu ñu ko gisee moo tension normale bu amul problème nañu koy wax daal tous les six mois même bu la dara lu da nga ñëw tous les six mm-hmm. mm-hmm. xam ne da nga war ñëw tous les mois tous les jours léegi nag beneen élément bi importance dañuy wax nga jënd appareil yow ngay nattal sa bopp sa kër waaw appareil bi léegi ça coûte entre dix mille et mille appareil boobu c'est important yow loo yëg sa yaram war nga xool bu fee tension bi ah, ah bu tension bi normal nga ne ah non du tension bu noo ma ne ah y' problème mu woo suma docteur ah man de di laa daan am léegi appareil bi di dem woon moom dina wax nooy def moo tax c'est ñetti éléments yooyu c'est important il faut nga am autosurveillance donc autant garab yi c'est important autant que malade bi dafa war am appareil di xaar seetal boppam. Mhm. waru rek xaar dama am xaar sama rendez-vous non waroo xaar. loolu yëg rek war nga vérifier bu deekee normal nga ne ah kon du tension bi mun naa def lenn bu anormal nga ne ah tension bi kat bi ci lii la daan def parce que tension moom dafay day law rek du dellu ginaaw waaw donc c'est important. Mm-hmm. mu mel ni kon communication boobu bu weesoo mesure d'hygiène yi jël war nañ ci gën a ñaax askan wi parce que wax nga ko léegi euh, appareil bi ça ne dépasse pas quinze mille francs famille bu nekk. war nga ko mën a am boo sentiree ay migraine nga wut quelqu'un ah, ko xam te dina la ko mën a defaral. waaw loolu c'est important. Mm-hmm. vraiment man saa porte sama ordinance daf ciy bokk. garab yi d'accord. conseil hygiénique diététique mooy wàññeeku sport bañ a wàññi xorom mais il faut nga jënd appareil bi. Mhm. waaw lu loolu daal rek nga vérifier loolu mooy aar parce que ñun lu ñu tax a jóg mooy aar parce que malade bu def AVC c'est presque trop tard bu def cardiaque c'est trop tard. Mhm. parce que cardiaque ça veut dire infarctus ça veut dire que le muscle mort. Mhm. mais donc y a faire. donc ñun suñu ñun suñu objectif traitement mooy prévention avant maladie di lakkale. donc loolu mooy yëpp mooy li ma lay wax ni moo la mën a aar ngay jël say traitement ngay suivre say rendez-vous ngay def say analyse pour nga mën a am jàmm. Mm-hmm. mais boo xasee ba def AVC def cardiaque tout ça c'est trop tard. Mm-hmm. donc amul intérêt amul certain intérêt. Euh, yaa ngi koy wax euh, prévention bi moom moo leen di tax a jóg euh, tey di ndax jàpp nga ne nit yi nga xamante ne dañuy souffrir li nga xamante ne moom moo di hypertension artérielle am nañu la prise en charge qu'il faut. non Sénégal fii amul benn prise en charge bu doy. muy jigéen ñi wasin y' a pas suffisamment de médecin euh, muy et puis le problème fondamental mooy lan mooy Sénégal boo jëlee Sénégalais y' mooy de vingt pour cent yu am assurance maladie. Mm-hmm. y' a les fonctionnaires y' a quelques yu employés des structures privées mais quatre vingt pour cent dañuy fayal seen bopp. alors que l'hypertension artérielle si si si moo moo nekk fii moo nekk États-Unis moo nekk Chine moo nekk euh, fépp c'est la même maladie. et il faut les mêmes examens les mêmes analyses qu'on demande les mêmes appareils mais Sénégal yi mënuñu ko donc problème bi mooy il faut que ñu mën a accès médical Sénégal de manière globale wax ma sax hypertendu parce que hypertension bu joxee complication cardiaque boo doon jël deux garab da ngay mun paye garab par quatre bu la boo amee jabet da ngay mun garab mm-hmm. donc et souvent nit ñi amuñu prise en charge mooy li nga xam ni mooy pour demee ci médecin da mm-hmm. nga hôpital public donc il faut que ñu trouver mécanisme CMU c' bon mais je pense pas que CMU jàpp mhm. parce que par exemple ñun privé du ñu jël CMU. hôpitaux boo ñëwee CMU du ñu jël donc idée bi est bien mais objectif bi mooy bu ñu bëggee prévention mooy il faut que nit ñi mën a faju la santé pour tous pour tous mais loolu dafa laaj. du slogan mais du slogan kooku dafa laaj xaalis. Mhm. par exemple man privé la man boo bëggee mën naa fay ko comme Dantec mais compensation bi ku koy fay. Mhm. parce que man damay fay ndox fay courant fay téléphone fay employé fay taxe lu nekk damay fay personnel. fay personnel alors que ki nekk Dantec état moo yor la donc boo bëggee ma jël facture comme Dantec da may jox subvention comme Dantec wala ngay jënd ay machine ci man man machine bi may ji Dantec un la ko jëndee mais man privé dama ko jënd occasion mënuma facturer comme Dantec mais un milliard yi c'est l'État qui a man bu ma demee damay dem banque leb xaalis di fay intérêt foofu fay transporteur bi fay banque mu mu viré xaalis bi fay douane fay tout donc mënuñu comparer mënu loolu loolu moo day limiter accès aux soins man sénégalais laa bu ma sañoon. Sénégalais bu mu dem clinique privée ku dem daanaka même chose lay fay. mais il faut que quelqu'un trouve de mécanismes derrière nga xam ni man état bi dafay jënd ay machine dugal ko fii ni ma malade bu ñëw ay sotu jàlloo bu ñëwee fii da ngay facturer comme Dantec du ma ko bañ di ma jox subvention comme Dantec du ma ko bañ. man Sénégalais la man ay Sénégalais lay faj. mais malheureusement dañuy def de telle sorte que privé ñu am moyen rek ñoo fay dem mais parce que wax naa la ko. Mm. alors que loolu la santé c'est un c'est un droit ci constitution dëkk yëpp. Mhm. man boo nekkee fonctionnaire sama état moom war a faj mais da ngay xam ne état mun la faj parce que li faj bi dafa limité. parce que fii structures yi am nañu ay jumtukaay yoo xam amuñu ko ko léegi moom mais ko doon def parce que avant ñun suñu ñu ci bari dañu yaakaar bu ñu fay rek mën nañu génn bitim réew. Mhm. mais Covid wane ne mënoo doo dem soxla ñu étranger ñoom tal lañu leneen. Mhm. il faut investir chez soi tey état bi. humaine am na. am na am na il faut de il faut même compléter ressources humaines mais il faut gis nga Maroc. Mm-hmm. boo boo jàngee fac de médecine boo génnee nga ne man médecin laa jéemoo sax xam xalaat da nga ne da nga bëgg ubbi cabinet de sa diplôme mooy garanti banque boo dem jox la xaalis boo soxla nga ubbi cabinet loo soxla jox la ba pare état bi jël su ginnaaw di la yónnee ay maire ngay facturer état bi que paysan bi sax day ñëw ci clinique bi état bi mooy fay de telle sorte que tout tout le bi day faju fu état bi léegi amatul problème ay nit ñi da ngay rang 6 heures du matin ba 22 heures dina fay dina li muy dépenser public mooy dépense privée parce que état dépense beaucoup d'argent d'argent dans le public les médecins sont pas contents les malades sont pas contents ñun on n'est pas contents donc y a problème. Mm-hmm. donc bu ñu gisee privé état bi loolu la war a xool comment trouver des partenariats public privé que sénégalais bu feebar mu dem Dantec mais il faut réfléchir comment équilibrer les mm-hmm. différences mm-hmm. te loolu loolu loolu mooy avenir Sénégal mm-hmm. tey tey tey tey boo demoon daante nga bëgg spécialiste di nga fa toog une semaine doo spécialiste tout boo ñëwee dans le privé fii doo taxaw on te prend tout de suite mais da fay donc il faut que l'État trouve woo privé bi réfléchir ak ñoom comment faire que sénégalais lambda bu jógee buum jarul muy dem Dantec dañoo clinique Golf il est pris en charge même chose que Dantec mais y a des compensations ñu war a def

dem di principal dix ans chef de service ubbi sama clinique amul ku ma gën a xam problème santé Sénégal bi Covid amee maa ñu ko abal sama clinique fii état Sénégal. Mhm. donc je connais les problèmes. Mhm. mais malheureusement ñun dañu toog suñu coin rek li liggéey suñu liggéey. Mhm. mais ñun ku ñu woo ñu wuy la wax la ñu xalaat dem suñu yoon. loolu mooy problème sénégalais démb ci guddi on a reçu un vieux deux heures du matin dañ ko defal pacemaker mais bi ñu ko laaj dafa mais il sait da ko depuis des xam na ko mais amul lu y a un problème état bi war na xam président war na woo laajte ñu mel ne ñun laaj ñu lan mooy problème yi ak nuñ koy saafara yaa a des tout ça ñuy def ñu mën ñuy fond de santé publique mais y a beaucoup de problème mhm. tey boo amee maanaam tey tey tey tey nga nañ ko soxlalaal sax problème la. donc tout ça c' est des l' état doit régler y a yoo xam ne man ak ñeneen ils sont là pour pour jéem a jàppale suñu réew parce que man c' yi là li rawoon léegi damay fay employé bu ñëpp defoon ni man Sénégal jëm kanam. Mhm. non non c'est comme ça qu'il faut voir les choses non problème bi c'est un problème de prise en charge globale c'est-à-dire que la santé au Sénégal vraiment c'est un gros problème mhm. il un problème de d'équipement il un problème de formation il y a un problème de structure il un problème de moyens parce que malheureusement ñun Sénégal bu sa du duñ ko defar gis nga fii scandale ay glucose nga xam ne ndoxu suukar la sax dañ koy importer mhm. mais ça c'est waxutuma nag boo dee ay problème carrière nga xam ni on doit te mettre un pacemaker bu fekk 200 000 fu muy te boo ko deful il perd sa vie et mm-hmm. boo demee ba dialyse dialyse da nga ñëw ñu ne la état bi am na ay lal mais c'est plein il faut quelqu'un meure pour ñu chambre. mais da ngay dem ba privé. en ce qui concerne dialyse la liste d'attente ah, est tellement mais ca dialyse bu ñu dialysewul deux jours nga dee. bu ñu commencé dialyse boo toogee une semaine dialyse boo nga meur tu donc voyez tous ces problèmes là c'est c'est des kenn xamul nu koy régler mais moi je pense que problème il faut les affronter mhm. mais tant qu'on n'affronte pas les problèmes on va jamais les régler nga naan on te dit que c'est mais tu es sur une mais yow da nga war a fay en attendant soixante-cinq burki dem j'ai reçu une dame de et immigré dañu fay ba am tuñu ñu fay mu toog une semaine dialyse ko bu doon benn journée rek mën naa ko dépanner mais mais comme c'est chronique je règle pas le problème je vais reporter le problème. Mm-hmm. mais vous voyez les problèmes c'est c'est exorbitant c'est énorme les médecins sont impuissants le pouvoir public est impuissant les malades sont impuissants. et beaucoup de gens meurent par faute d'assistance dans ce pays-là. je le dis. Euh, contrairement euh, ñu ngi prôner la santé pour tous. mais la santé pour tous ça c'est c'est pas concret c'est pas du concret. il suffit pas d'inscrire quelqu'un 3000 il faut que l' état mette beaucoup de moyens mais gis nga problème santé xam nga nu koy réglé c' est l' emploi il faut que nit ñi liggéey di cotiser France boo fa demee boo feebaree du ñu xool da ñëw am nga carte parce que chaque jour ngay fay te dara daru la boo feebaree on te prend en charge tant que régluñu problème emploi le problème santé ne sera pas réglé loolu mooy wax ci. Mm-hmm. parce que la santé c' est y' a la la santé a un coût. Mm -hmm. et pour régler le problème du tu as 18 ans ou 20 ans tu travailles tu n'as rien tu cotises pour les autres mais fii y a 80 pour cent amuñu liggéey. c'est la réalité dañuy wax rek ay eh, lii chiffres ñu mais boo jëlee 10 Sénégalais juróom-ñett yi amuñu liggéey concret et tant que tu n'as pas de travail tu peux te soigner et c'est la santé c'est un droit. La santé, c'est un droit. Pour nous régler ko il faut nous régler euh, le problème de l'emploi, mais aussi il faut que euh, privé bi ak public bi euh, gëna boole seen doole gëna boole seen doole ngir ñi nga xamante ne ñoom ñooy la couche défavorisée mën a gis seen bopp à chaque fois bu ñu bëggee dem que docteur. Absolument. Il faut un partenariat public-privé. Il faut faire comme en France ou au Maroc. Mm-hmm. feebar boo dëkkee xaar yàlla bu la neexee dem clinique golf bu la neexee nga dem Dantec yow li ngay fay ngay fay. Mm-hmm. mais il faut des des des mécanismes de régulation lu ñuy wax partenariat public privé. ça veut dire que tey man tey état bi def may jox subvention man j'étais militaire principal état bi day joxe subvention ay milliards te pourtant principal boo fu demee da lay facturer ah fonctionnaire dañuy facturer jëlawaat ko ministère du finance mu ñu fay leen pourquoi yoo xam ne sont sûrs c'est solvable. ñu wóor ni c'est pas du n'importe quoi état bi dafa subventionné comme ni muy subventionné hôpitaux yi dafa indi matériel comme ni muy hôpitaux yi di demander que ce qui ne facture comme le public comme ça le, le Sénégalais il a de de, de choix. Mm-hmm. man pourquoi may rang IPRES de six heures matin à minuit alors naa dem kii nu golf du ma fa def deux une heure de temps mais il faut des mécanismes compensatoires. loolu rek la. et c'est pas aussi donné à tout le monde aussi. ah oui mais mais kooku état bi rek moo ko mën a régler. Mm-hmm. non man de je suis preneur tey bu état bi ñëwoon ne ma léegi dootoo fay ndox comme du hôpital ba jox ay machine dama lay subventionné personnel maa koy fay da facturer consultation 3000 francs je facture 3000 francs au lieu de 15000 francs mais nag bu ma war a fay ndox fay courant fay ko fay carburant fay groupe fay lépp mais il faut que c'est c'est mais yooyu c'est des choses sur le fait qu'il faut qu'on réfléchisse il faut qu'on aille de l'avant ko kon Maroc boo fa demee séparé benn jour loolu benn benn centre sophistiqué machine boobu bi ñu ma machine bi affaire cancérologie ñoom rek ñoo ko am à part Europe ma fekk fa koo xam ni déggul sax tubaab moo am ne médecin mais comment explique que kii c'est un berbère là mu mën a ñëw fii mu ne ma non c'est l'état qui paye mais il est il est citoyen donc citoyen bi état moo ko charge mais c' est vrai que état amul moyen parce que les gens ils ne ils ne travaillent pas ils ne cotisent pas il faut que les gens boostent le travail ñuy cotiser c' comme ça après la santé ça va ça va fluide amul beneen mécanisme amul ay question de personnel matériel non il faut que l' emploi c' qui va booster la santé s' y a pas d' emploi santé du dem Euh, ma fàttali ne yéen a ngi teewlu seen émission bii di SOS santé tey nag ñu am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur Massamba Thiam mu nekk spécialiste des maladies du cœur et de vaisseaux waaye tamit nekk ancien interne nekk tamit chef de service de cardiologie dañuy dellu si waat ci li nga xamante ne moom moo di la pression artérielle euh, ci ay xibaar dañuy ne la pression artérielle dafay exprimer wu ci deux valeurs cancer benn bi moom moo di systolique tey ji docteur Massamba Thiam euh, pour auditeurs yi ñuy déglu rek euh, expression bi c'est un peu lour mais boo moo ñu ko doon expliquer terre à lan nga ñu ci mën a wax. waaw xam nga loolu pression boobu en fait ça part du cœur cœur bi moom mooy pomper deret boobu pression bi foofu lay départ ci cœur bi mm-hmm. mais pression boobu cœur bu ko pomper. moom mooy joxe force boobu mooy premier chiffre bi léegi bu relâché parce que moom day pomper de relâché bu relâché mooy joxe deuxième deuxième deuxième chiffre bi en gros mm-hmm. mais loolu pression bi nekk sa loxo fii moo nekk sa bopp moo nekk ci tuyau yëpp mais tuyau yi yemuñu est-ce mm-hmm. moo tax yow mën nga am vingt de tension bopp bi lay jàpp parce que bopp tuyau yi dañu ndaw bi tuyau bu ndaw daf koy exploser mooy indi ay AVC hémorragique loolu donc pression boobu effectivement dafa am si systole ak diastole mooy mm-hmm. buy sël bi contracté ak buy relâché wu léegi nag chiffre boobu am malheureusement nit ki tiw yi yemul mhm. moo tax complication yi ci tiw yi ndaw yi lay gën a fare. tiw yu. ndaw yi. parce que même pression boo amee cent de pression mu nekk ci tiw bu ndaw bokkul bu amee cent nekk tiw bu mag mi ngi lay arrosé rek ak pression bi. Mhm. ci tiw bu ndawee day day day day day fort loolu muy indi problème yi. donc loolu mooy expliquer ñaari chiffres ñoo production systole ak diastole systole mooy bu cœur bi di contracté diastole mooy buy relâché wu mhm. donc dafay wàcc après mhm. donc chiffres yooyu dañ ko définir que warul dépasser fukk ah, ah, ko dépassé rek mooy hyper mhm. beneen bi warul dépasser quatre-vingt-dix ça donc nit ki l'homme lambda na jàpp ne tension anormale warul dépasser cent quarante quatre vingt dix bu xoolee machine yi léegi. parce que daf lay jox trois chiffres. Mhm. du jox rek quatorze da jox beneen chiffre bi. Mhm. léegi loolu mooy définition hypertension mooy ki manière permanente mooy tension bi foo ko nattee rek dépassé na cent quarante quatre vingt dix. Mhm. jeex na. amul beneen explication. soxlu beneen rajo. waaw loolu mooy définition bi. Euh, wax nga ko wala ki nga xam ne tension dafa normal sous traitement. quelqu'un qui est hypertendu bu jël garab tension day normal. da koy réguler waaw da koy réguler day am moins de cent quarante mais traitement bi moo tax mu am lool mhm. loolu tamit c'est la deuxième définition d'hypertension artérielle mooy ki nga xam ne tension ne tension dafa normal sous traitement parce que bàyyi euh, wax nga ko léegi but yooyu tuutee mooy waral koo xamante ne tension bi da koy def méttitu bopp bu weesoo méttitu bopp yooyu yan signe yan symptôme euh, la ñu mën a xàmmee li nga xamante ne moom moo di hypertension waaw tension bi li ci gën a fréquent mën a indi ci comme li ma wax rek mën nga ko découvrir ñu jël ko rek te yëgoo dara. Mhm. wala nga am ay vertige wala boobu bi metti wala complication complication de hypertension par exemple mën indi cardiaque. Mhm. wala nga am complication AVC wala nga am complication daal mën na ko indi mais loolu moom c'est vraiment baaxul vraiment dañu war a jël ñu en charge même avant ñuy am yenn symptômes. ci mhm. loolu loolu parce que ñun duñ ko wéral il faut mu leer tension ñun duñ ko wéral dañ koy traiter pour mu bañ indi ay jafe moo tax traitement bi sa vie. loolu donc symptômes yi gën a fréquent mooy ay vertige ngay miir wala sa bopp di metti wala nga am ay mais mën na ay bourdonnement d'oreille mais yeneen symptômes yi mën na nekk ay complications hypertension artérielle. nga xam ba am complication par nga am ay vertige nga nga négligé ko. nga xëy rek nga am mënatoo nooyi nga am cardiaque nga am nga am problème cardiaque ñu wax œdème mhm. aigu du poumon. Mhm. loolu day day loolu day dafay am. Mhm. wala nga ñëw nga jëf analyse ñu xam ni sa rein dafa am problème. wala euh, nga def crise cardiaque ñu xool yow da nga am tension. Mm-hmm. wala nga am décompensation cardiaque di sa tànk yi néew yi ngay fatt ak yooyu. Mm-hmm. mais que accès médical bi moo jafe. Mm-hmm. nii dañuy feebar di soox di soox di public privé. que Sénégalais bu feebar mu dem public privé il faut que la médecine soit accessible. tout en fait mais c'est un coût mais coût bi supporter. malade bi mënu ko supporter. état bi ak yeneen acteurs ñoo ko mën a supporter mooy ngay cotiser fenn assurance quand tu vingt ans doo feebar tu cotises une assurance mettons cent mille francs par an pendant dix ans boo demee ba am ba soixante ans boo feebaree dinañ jël en charge. Mm-hmm. mais loolu loolu mooy assurance il y a mille qui dix qui sont foofu la ñu war a góorgóorlu waaw te loolu moo mun a aar feebar yi fii mais fii li fii fii nous on a des des des morts imméritées ñoo xam ne dañuy dee parce que defuñu lu ñu war a def. yàlla mooy rey certes mais beaucoup de gens ils meurent parce que doo am place hôpital doo am fi jël ñu en charge rapidement jëndoo sa garab amuloo jënd garab. loolu dafa jaaduwul. dafa jaaduwul pendant ce temps là y a de l'argent ailleurs ñun suñu ñun suñu pays sous-développé yi dafa am discordance suñu suñu utilisation de nos ressources. Mmh. amuñu mi ngi noonu xam priorité mais. dafa ni ñuy utiliser ressources dafa am discordance. Mm-hmm. par exemple am na ay dépenses par exemple ñoom man bu doon man bi ñu commencé Covid bi au ñu jënd ay ceeb ak jur on aurait construit un hôpital de mille lits nga xam ne jeexee dafa des. Mm-hmm. tout à fait. et des pays l'ont fait le Ghana l'a fait ils ont construit un hôpital de centaines de lits au lieu ñu jënd ay ceeb ak ay macaroni yooyu mais ça c'était beaucoup plus pertinent. Mm-hmm. def ko centre Covid bu centre Covid jëfee ñu seet nu ñu koy déglu kii. toujours mais non mi ngi noonu même bu on va garder des des lits au cas d'épidémie en cas d'épidémie ba léegi man je pense état bi war boo xam ni daf ko war structure tampon en cas d'épidémie comme nekk en temps normal ñu ñu ko leneen. man maa ngi ci waxtaan ak yenn autorités ma xam ne leen il faut état am loolu parce que hôpital normal en cas d'épidémie même France ñuy gis xam ne ñooy moyen ils il faut que état bi am benn structure de repli en cas mën na am accident gaz wala lenn. foo xam ne ñëpp la ñuy dem. benn hôpital Sénégal mënu jël vingt malades dans la journée amul benn hôpital Sénégal mënu ko jël parce que actuellement sont sont surbookés en temps normal donc boo yemee cent personne mais tu as un problème donc c'est des choses yoo xam ne il faut réfléchir et c'est maintenant qu'il faut le faire on peut plus partir. on peut plus partir ay Maghreb ay Europe Tunisie ay France non il faut que ñu ah, ko fii. Mhm. te loolu war nañ ko mën c'est une volonté politique c'est tout. Mhm. Euh, docteur euh, Massamba dafa mel ni léegi doon bi dafa changé parce que bu njëkk da daan dégg ñu naan la ku am forte corpulence wala sédentarisme bi dafay favoriser la pression art euh, l'hypertension wala tension artérielle mu mel ni léegi. don bi dafa changé parce qu'il arrive que nga dem ay ci yenn structures yi nga gis benn jeune fille bu tuuti comme Fatou Baba ñu ne la kii dafa am euh, jàngoro bi wala dafa am lan moo jur loolu ci nu ñuy lekkee la wala ci suñu façon de faire la. non mais loolu changé wul xam nga facteur risque ça pas dire que obligatoirement xam nga facteur mooy la probabilité boo amee feebar bi am nga probabilité pour am feebar. mais c'est pas cause. cent pour cent mën nga am bataa. amoo tension amoo graisse amoo dara. mais boo tànnee sur mille pata. nga jël mille ñu sew foofu lay ëppee. xam nga foofu lay médecine différent mm. la médecine du science exacte. du du du un par un moom day jël statistiquement day jël nombre bi. Mm. bu jëlee mille ñu am yaram. Mm. bu doy fi nattee foofu muy ëpp tension par rapport ñeneen mais ça veut pas dire que képp ku am yaram da ngay am tension wala képp ko ko am ñu noonu. loolu la donc les facteurs risques du changer. Mm-hmm. mooy la probabilité mooy nga am change nga am feebar bi mais c'est pas cent pour cent am na ñuy tux amuñu cancer du poumon. Mm-hmm. mais cancer du poumon ci ñuy tux la ëppee ko ñu dul tux. mën nga bañ a tux mu dal la. Mm-hmm. xam donc loolu mooy loolu mooy médecine statistique. donc loolu c'est quelque chose de normal. mais boo gëlee en fréquence en nombre. feebar yooyu ci ñooñu la ëppee loolu moo tax loolu ngay gis mais l'exception confirme la règle loolu la di gis ku sew mu toll ni man am jabet am tension parce que daf ko doon ci papaam papaam yaay bu ñu jabet ba yàqu mhm. papaam yaay bu ñu tension ba yàqu mu doon ko ci dans les gènes donc du question ay yaram ak loolu ñu ngi noonu di gis ku am bata mais amul tension amul jabet une tension normale mais boo jëlee en nombre pour ñooñu population boobu am yaram foofu ngay ëppee feebar yi mhm. loolu la loolu la médecine du wax mhm. il faut nañu comprendre loolu donc nag donc ñun médecine ci loolu la ñuy basé li nga xam ne mooy indi feebar yi dañ koy jéem a maîtriser mooy boo amee poids boo amee tension boo amee tension normal boo amee cholestérol ñu normalise ko booy tux ñu bàyyiloo ko boo amee diabète mu normal ñuy conseil nga def exercice physique parce que on sait que tout ça loolu dafay contribuer mu normaliser chiffre yooyu. pour mm-hmm. normaliser donc y a moins de complications. Mm-hmm. Mm-hmm. justement par rapport ak chiffre yooyu tey jii lan nga ñu mën a wax ci ci ci taux de prévalence bi tourner autour de la tension artérielle. waaw hypertension artérielle y a des nous on a fait des études à l'hôpital on a fait des études un peu dans les régions avec des collègues. mais on n'a pas fait vraiment des statistiques y a 16 millions de population pour me représenter peut-être il faut 400 000 ou 500 mais on a fait des études parcellaires qui montrent quand la, prévalence mooy li ñuy gis ci hypertension ci adulte yi c'est autour de 20 pour cent ça peut être moins. Mm-hmm. mais boo demee hôpital c'est ëpp na loolu. parce que ñooñu mm-hmm. dañu feebar ba ñu hôpital donc c'est statistique biaisé mais en général c'est dans le monde c'est entre 10 et 20 pour cent. Mm-hmm. donc donc boo ko rapporté population Sénégal sur vingt millions maintenant euh, dix pour cent ça fait presque euh, deux millions de gens qui sont prétendus. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax loolu dafay yóbbu fit wala deux millions. non du yóbbu fit li ma li ma wax ci njëlbeen bi rek <coughs> tension dafa nekk affaire boo xam ne bu daf mën nga ko ñun mënuñu ko wéral mais boo boo ko traité doo am jafe-jafe. Mm-hmm. nga traité ko parce nit nag. tôt ou tard da ngay faatu. dëgg la mais donc médecin moom mënul faj la mort comme on dit mais on fait tout pour allonger la vie. donc dañuy def lépp li nga xam ne day concourir la mort ñun dañuy yëm koy gàllankoor pour nit ki mën a dund. Mm-hmm. donc boo dalee hypertension te tu n'es pas inapte pour liggéey. Mm-hmm. mën nga dem màkk mën nga liggéey mën nga tax dawal avion. Mm-hmm. c'est pas une contre-indication mais quelqu'un nga xam tension normale kooku moom il est inapte. loolu loolu la donc amul lu ci tiit feebar la comme feebar yëpp. boo ko traité normalement doo am problème donc c' est pas une contre-indication absolue même boo amee hypertension mën ñu bëggoon rek nga wax ñu ndax dafa am des cibles yoo xamante ne jàngoro bi ñoom lay gën a kii maanaam euh, adolescent bi jeune bi wala les personnes d'un âge assez avancé. no hypertension en général comme ni ma la ko waxee personne âgée lay lay lay faral di dal chez un jeune boobu hypertension artérielle il faut ñu xam lu tax moo am hypertension. Mhm. li ñuy wax hypertension secondaire c' c'est moins de 5 pour cent. Mm-hmm. donc euh, en tension yenn acteur par contre ñi nga xam ne dañu ay diabète yooyu boo amee diabète souvent bu ñuy suivre tension day génn boo amee tension souvent diabète day génn on a l'impression feebar yooyu dañu xaw donc pratiquement hypertendu diabétique c'est pratiquement 50 pour cent des malades mm-hmm. donc souvent ku tension da nga am diabète mais c'est pas obligatoire mën nga am tension tout seul mën nga diabète tout seul mais souvent moo tax ñun dañu koy seet mm-hmm. hypertension dañuy am diabète donc loolu moo tax ñooñu tamit c'est une population à risque bon ñi nga xam ne bu ñu demee ba am complication hypertension artérielle donc c'est normal ba pare mais population yi am mooy par exemple cigarette par exemple mën na favoriser hypertension parce que day modifier vaisseau yi ñuy tux cigarette donc at dem mag ñi am diabète ñu am ay ñi tux cigarette ak nga xam ne ay sédentaire lañu ñoo xam ne duñu yëngal seen yaram d'accord ñooñu ñooy population yoo xam ne à risque du ñu wax euh, ci hypertension artérielle sans pour autant évoquer ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les personnes à risque euh, soxal jàngoro bi di Covid 19 nga xam ne dugg na ci attaque euh, lu ëpp ci Sénégal tey jii ñooñu noonu nga xamante ne déjà dañu am tension ban mode de vie donc la ñu war a mën a adopter ngir mën a moytandiku feebar boobu. waaw njëkk seetlu Covid bi. comme niñ koy wax rek feebar bi ay mag la njëkk a wër ay mag lay bañ mag lay wër te dafa seetlu mag yooyu ñi am ay comorbidité mooy hypertension wala diabète wala insuffisance rénale wala feebar chronique. Mhm. ñooñu bu leen dalee noo def mu bu dañuy dem réanimation te bu ñu demee réanimation ils ont une chance sur ñu duñ fa génn. compliqué waaw donc ñooñu ñoom ñoom d'ailleurs malheureusement virus la le seul traitement mooy vacciner leen. ñu moytu ñoo ñooñu ñooy premier ñooy premier ñi nga xam ni ñooñu c'est des sujets à risque. Mm-hmm. parce que effectivement dañu wo dafa études yi ñu ko génne ni virus bi dafay jaar ci ay récepteurs yi nga xam ni comme ñu am tension ci ñooñu lay jaar te ñooñu euh, ñi am hypertension ñooñu lay ciblé. Mm-hmm. te ñooñu comme ni ma lay expliqué bu leen xasee dal seen cas day jafe-jafe day dem réanimation réanimation pour ñu gën fa lay jafe. Mm-hmm. donc ñooñu un ñooñu ñooñu njëkk a vacciné heureusement vacciné ñooñu ñoom ñoom la ñu njëriñ njëkk a vacciné euh, deuxièmement ces gens là ñoom ñoo war a aar continuer les ma les gestes parce que xam nañu bu leen dalee rek day indi jafe-jafe waaw. ok waaw dañu exposé. dañu exposé c'est gens à risque waaw c'est les gens à risque. Mhm. ñooñu que faudrait-il faire euh, pour ces personnes. non mooy un ñu vacciner. deuxièmement ñuy ñu jël ay masque barrière mooy raxasu masque gel éviter les contacts mm-hmm. mais heureusement du dal ñëpp mais bu leen dalee moom souvent c'est des cas très compliqués waaw te bu compliqué moom virus amul traitement mm-hmm. y a pas traitement o oh, ay tëpp tëppal rek mais y a pas traitement amul garab boo xam ni comme siburu boo ko jëlee mu dem non amul waaw. Mm-hmm. Euh, dañuy jóge ci wàll woowu ah ñëw ci beneen wàll yi docteur dañu seetlu ne bu ñuy farataal di wax li nga xamante ne moom moo di tension artérielle yi les femmes enceintes yenn saa yi dañuy exposé lan mooy expliquer lu ni waaw loolu lu ñuy wax hypertension de grossesse dafa nekk mm-hmm. loolu beneen sujet la. Mm-hmm. waaw ñun dañ ci liggéey lu yàgg d'ailleurs. hôpital principal xam ko étudier yi. Euh, hypertension de grossesse dafa nekk souvent normalement euh, trois façons moo mm-hmm. am. na koo xam ne moom dara dalu ko. Mm-hmm. ci fin grossesse bi la tension bi feeñ. loolu loolu ñuy wax pré-éclampsie. Mm-hmm. am na koo xam ni moom avant muy ëmb dafa am hypertension artérielle. xam mën na rien non non moom avant muy ëmb dafa amoon am tension. am na koo xam ne nag ci diggante bi la par exemple du troisième trimestre. te amu ko woon. mooy bi nga xam ne avant la mais bi gën a siiw mooy hypertension bi nekk troisième trimestre dangay ngay da ngay nekk ba ba juróom-ñaari weer. nga lu ñuy wax nga xoo xorom sa tànk néew yi nga am ay problème tension bi di yéeg loolu lu ñuy wax pré-éclampsie te loolu euh, buñ ko fajul dafay dem éclampsie mooy da ngay crise mën na rey xale bi mën na rey yaay ji mm-hmm. malheureusement loolu mënuñu ko teel a xam tant que doo da ngay toog di suivre nit ba si yàgg rek bu traumatisme mu ñëw te tant que xa xaale bi nekk ci biir bi génnu tension bi du dem te olo ko xale bi matul donc toujours médecin yi dañuy tëpp tëppan ba mën a xale bi mën a ñor pour ñu jéem a génne xale bi te donc loolu bu la dalee moom il faut ngay surveillance entre ses gynécologue ak ses cardiologue loolu parce que feebar bi dafa garaaw yaay ji mën na ci xale bi na ci perdre bakkanam loolu mooy mhm. loolu mooy problème bi mhm. loolu mooy ñett hypertension yi am mhm. léegi nag bu la mësee dal bi nga xam ni mooy ba fréquent bi troisième trimestre bi bu la mësee dal on pense que dafa am anomalie ci placenta placenta mooy li nga xam ne mooy lié xale bi ak yaayam. Mm-hmm. foofu mooy jox luy dund xale bi mën nañu jox ay garab ay aspirine waa dose nourrisson pour mu def anti-agrégant pour loolu feebar bañ dal on pense que anomalie bi foofu la nekk. donc mu loolu loolu mooy feebar bu grave la te bu la dalee pré-éclampsie mooy xorom boobu bu demee éclampsie wax naa la c'est grave mën nga am ay crise mën nga mën nga am AVC mën nga am insuffisance rénale complication yëpp mën na la daal mën nga sax sa bakkan. Mm-hmm. donc lu garaaw la waaw. loolu loolu mooy hypertension troisième trimestre. Mm-hmm. te loolu ku ëmb normalement bu ëmbee sa tension waru dépasser ay douze treize en général boo ëmbee sax sa tension lay wàcc buy yéeg rek attention. Ah, ah, a wàcc dafa war a wàcc waaw ah, en général loolu la. dañu wàcc seen tension. Mm-hmm. donc bu yéegee rek attention dafa laaj surveillance stricte prise en charge globale nga xam ni bu amee problème sax il faut nga def césarienne génn xale bi parce que parfois même garab bi sax du wàcce tension bi seul traitement mooy xale bi génn mais xale bi pour mu mu ñor. Mhm. bu ñorul loolu ah parfois da mën a dal doo doo nekk terme day nekk ay vingt huit semaines. Mhm. alors que ay à partir de trente et un semaines bon indi. Mhm. te prématuré day indi yeneen problème. day Sénégal yi hôpitaux yi couveuse compter. tout à fait. <laughs> alors que ça coûte même pas un million de francs. couveuse yi ah oui eh. non mais y a tout le problème dans ce pays là. ñu ngi noonu donc femme boobu elle elle a des risques son enfant a des risques de mourir la femme peut mourir de complications d'hémorragie cérébrale AVC insuffisance rénale donc c'est quelque chose de grave. Mm -hmm. et donc il faut que ñu détecte ko très tôt. boo demee normalement sage-femme yi le font systématiquement détecteur proteinurie yi mooy ñu xool saw bi xool ndax da ngay xorom wala yooyu. dañ koy def systématiquement ci mm-hmm. visite prénatale bi. Mm-hmm. boo amee problème il faut référer chez les spécialistes il faut un suivi plus rapproché. Mm-hmm. waaw d'accord traitement bi nag euh, dafay wute ak yeneen façon. non traitement bi dañ jox garabu tension mais souvent ça ne marche pas. on peut donner des médicaments mais le seul traitement bu nga xam ne bu la dalee loolu pré-éclampsie bi il faut xale bi parce que conflit bi léegi xale bi nekk ci biir moo ko indi waaw dafa mel ni corps état tant moom génnul rek tension bi na nga ko en général bu ñu bu ñu bu xale bi génne rek tension bi day normal et souvent c' est des gens yoo xam ni après seen tension day normal mais mën na yëgaat nag plus tard plus tard bu xale bu accouché rek waaw mën mën na mën na normal. Mm-hmm. waaw. Euh, lan mooy lan mooy lan mooy euh, signe que jigéen wérul bi wax nga ko dafa am ñett ñett tension yu différé mais lan mooy lan mooy seen signe yoo xamante ne ils ont elles ont ça en commun wala amul ku nekk ak ni nga. non pré-éclampsie bi ñuy wax bi nga xam ne mooy mooy xorom bi. Mhm. souvent dañuy am hypertension artérielle tànk yu néew bu ñu xoolee su su ci saw bi day am protéinurie. Mhm. loolu moom mooy mooy mooy définition bi. mooy hypertension œdème protéinurie. Mhm. mooy xorom nga. Mhm. bu ñu ko xoolee day am ay croix mooy da xorom boo xoromee nag il faut nga dem seeti spécialiste. un gynécologue un cardiologue ñoom ñu jël en charge de manière collégiale day am. mën ngaa ko sax normal mais il faut mooy suivi. mënatoo xaar ay 6 mois consultation il faut que tous les 15 jours ñu saa su bi wala médecin bi gis daal. Mhm. man maladie yomb yooyu dama yàgg boo demee ci gynécologue bi beneen semaine bi da ñëw ci cardiologue bi ñu mhm. xool. waaw parce que il faut vraiment il faut sauver la maman. Mm-hmm. parce que ça sert à de perdre la vie en donnant la vie. ñu mm-hmm. noonu te loolu day am te yàlla moo koy def da ngay xëy rek affaire bi dal la. Mm-hmm. Euh, docteur Massamba Thiam ci loolu lay des ba léegi mu mel nii femmes yi nekk enceinte te ñuy am problème mu xorom dafa bëri lan jàpp ne moo ko expliquer ndax elles sont pas trop sensibilisées sur les risques wala quest qui se passe. non. non bëri je pense pas que dafa bëri bon je pense que je me rappelle pas j'ai fini à l'hôpital principal donc euh, mais ñu malade mais warul bëri soo jëlee sur mille accouchés warul mat ay peut-être ay dix wala quinze mm-hmm. mais quand euh, li ci bon mooy ñooñu feebar bi indi leen ay jafe-jafe médecine moom li muy wax benn décès mënuñu ko accepter. à fait loolu mooy problème bi bon boo xoolee un décès sur mille c' pas grave c' comme vaccination bi y' a sur cinq de vaccination y' a trente thromboses c' rien du tout. mais ñooñu feebar neexu leen bu ñu soñoon dara du leen dal. Mm-hmm. donc c' pas si fréquent que ça mais quand même c' est grave. et il faut une prise en charge sérieuse pas ay tappa tappal parce que la mère a des risques l' enfant a des risques ñun étude bi ñu fa hôpital principal un donc 50 pour cent de mortalité. ok xam c'est grave. infantile waaw ah, waaw. peut-être les les mamans peut-être 1 à pour cent. Mm-hmm. mais c'est c'est mais quand même 1 pour cent c'est pas acceptable. Mm-hmm. une maman qui décède c'est pas acceptable. Mm-hmm. ce qui n'a rien à voir avec li ñuy duppee ay suite de couche non mais la suite de couche ça autre chose. Mm. mais hypertension bi nga xam ne moo moom grossesse. ba donner des complications mais sur de couche mën nga am beneen problème mën nga am hémorragie mën nga am trouble embolie pulmonaire mm. mën nga am leneen ak leneen infection wala loolu mais mm. loolu ça n'a rien à mm. ah, mais loolu tamit suñu structure la avant de laisser partir une personne war nga ko vérifier xool ko examiner ko tout va bien maintenant la tendance mooy wax suñu bàyyi la génn. mais il faut quand même ñu vérifier. tu peux pas laisser koo xam ne peut-être il a un caillot quelque part vérifier woo ko wala température bi mu ngi yéeg nga bàyyi ko mu génn ñibbi këram. Mm-hmm. mais tout ça li ñuy wax parce que les gens sont débordés y a pas la rigueur mais warul am warul am warul mun nekk. normalement ma accoucher mën nga génn le vingt quatre heures après mais à condition ko tout soit normal amul température amul signe de phlébite amul essoufflement tout est normal xale bi médecin yi gis nañ ko ñu mën ko bàyyi mu génn. Mm-hmm. mais souvent les gens ils laissent sortir vérification. Mm-hmm. après y a des problèmes. Mm-hmm. y a pourtant démb laa accouché dès mu mel ni ñu ci war a def. non non non toujours y a vous savez la mort subite mooy mort bi nga xam ni ça se fait rapidement y fii lañ ko romb dee na non c'est ignoré waa ji dafay feebar xamuñu lu ko dal wala jox diagnostic bi mu koy sooxaale ñu ne léegi la fi romb daanu na am na lu ko dal. am na lu mu doon sooxaale am na lu mu sooxaale ça n'existe pas. Mm-hmm. dañuy wax vingt quatre après les premiers symptômes souvent a ah, commencé woon na sentir lii amoon naa kii kat maa ngi doon miir maa ngi am ay vertiges maa ngi am ay palpitations y a toujours quelque chose lu ñuy annoncé mais ñun dafa ko. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux. Il faut qu'on les outils de travail. Mm -hmm. on a une obligation de moyens, mm-hmm. mais pas de résultats. Mm-hmm. mooy médecin dafa war a def kéem la kàttan pour xam loolu daal ko yor. médecin bi ko parce que wóorul la war parce que bi mu ñëwee dafa la a def pour xam sa feebar. Mm-hmm. mooy obligation de moyen. mais souvent fii comme affaire moyen no oui c'est cher malade bi dafa ko non non loolu c'est des histoires. da ko war a li mu war a def mu def ko. la ministre a une obligation de moyens mais pas de résultats. mais moyens c'est toujours le même problème il faut de l'emploi il faut une politique cohérente il faut non. il faut il faut y associer et nous on on a des des gaps moo tax emploi moo yore lépp. tout à fait. boo amee liggéey di fayoo di cotiser boo feebaree ñu mën laa faj lu mu lu mu cher cher mais boo xool ku lay fayal. sa papa mm-hmm. retraité la. sa yaay retraité na sa jëkkër ginnaawam journalier la ginnaaw jëw ginnaaw. c' est état def na ay effort ay césarienne gratuite dialyse gratuite. mais ak condition am place. si c' est gratuit amul place bi c' est soixante mille en moyenne par séance en moyenne. te war nga dialyser trois fois par semaine ça fait cent quatre mille bu fekkee milliardaire nga sax fii dans cinq ans. da mi ngi noonu c' est ça c' donc état bi moo def mooy ñu commencé grève parce que les soixante c' est la grève mooy règle problème c' est pas la dialyse la dialyse ñu weesu fii ay Tunisie ay Maroc dañuy greffé ñun war nañu ko mën a la technique y a des médecins tout mais il faut que la les politiques suivent. Mm-hmm. dialyse règle problème ça ne règle rien c' est un traitement de fortune. c' est en attendant ñu lay greffé boo demee ñi am dialyse yëpp hypertension diabète mooy moo leen moo ci ëpp. Mm-hmm. ñoo donc boo traité hypertension doo yegg foofu donc état foofu la war a accès def ay campagne de sensibilisation garab yi ñu wàññil ko bilan yi ñu wàññi ko par exemple comme en France dafa am ñoom dañu am trente maladies yoo xam ni bu la dalee doo fay dix francs at ku munti doon. 30 maladies waaw ce qu'on appelle affection à longue durée. Mm. France ñoom la def. Mm. cancer hypertension diabète dañ ko listé 30 nga xam ni mm. ça c'est coûteux ñoo xam maladie chronique boo la dalee doo doo fay visite doo fay analyse doo fay comprimé mais day tax doo feebar. c'est ça le problème. c'est ça le problème. Mm-hmm. ça mais docteur euh, ñu ubbi benn brèche balaa ñuy tëj. mu mel ni jàngoro bi di Covid 19 euh, dafa wane suñu lim euh, suñu suñu limite tel que le plateau le plateau médical ñu ci bëri donc dénoncé woon nañ ko ay structures yoo xamante ne y a pas assez de matériel tey jii noonu. war nañu war ñu mën a servi de leçon pour que prochaine fois donc ñu mettre l'argent ou bien les personnes à la place qu'il faut non mais ça c'est une évidence ce qu'on appelle la bonne gouvernance kooku mm-hmm. soxlawul médecin mm-hmm. képp ku ku ku xelam normal war nga xam bon gouvernance mooy yow war nga nekk Sénégal dëkk région boo nekk war nga am hôpital bu mucc ayib ku fa feebar doo fa jógee waxuma sax wax Dakar fii ku feebar Dakar ngay ñëw <laughs> si si si ah. war nga nekk chaque région am hôpital bu mucc ayib ku feebar doo fa jógee suñu autorité ñoom ku feebar doo génn dëkk bi fii ngay fajoo Sénégal soit ñu am ay hôpitaux militaires yoo xam ne c'est parce que discrétionnel wala même au sein du palais mais dégg naa Maroc euh, am na euh, benn kii ci biir biir biir bi roi bi mën nañ ko fa opérer du génn foofu mais daf mu wóor boo demee palais est-ce que am na défibrillateur défibrillateur mu nga xam ne boo daanoo liy sauver nit je suis même pas am na palais de la République te pourtant France foo dem lieu public boo xam ni nit mën na fa daanu dañ ko fay def gratuitement mm-hmm. loolu mooy sauver cardiaque amul beneen médecin mënu ko sauver mënu mooy défibrillateur appareil boo xam ni dañ koy teg ci malade bi bu day wax sax ni la defal di defal lii day sauver malade médecin mënul loolu rek moo am donc ça ñoom war nañ ko xam non les gens là yi kay ñoo war a pousser. pour que mhm. ñu ñu am lu ñu bëgg c'est ça. Mhm. Euh, waxtaan wi am na solo waaye docteur Massamba am dafa mel ni lu ñu cërale woon ci waxtu wi yegg si nañ ci. waaw waaw non man maa ngi sant gërëm toujours ñun li ñuy wax rek du changer ñun médecine Sénégal at fépp li ci am solo mooy prévention. prévention loolu lu am solo la. Mhm. surtout boo amul moyen loolu ngay comme ça que état bi war dafa am politique de prévention ba à tous les niveaux mais prévention fii doo il faut mu am problème rek ñu door a jóg dañu xaar bu ñu këpp ñëpp jóg te loolu mooy loolu moo am solo. parce que Europe seen seen tous les bons qu'ils ont fait c'est sur la prévention c'est pas ay machine ak ay nit. crise cardiaque Europe ils ont fait des bons de presque cinquante pour cent c'est pas sur les machines ou sur les appareils ou sur les hommes c'est sur la prévention. Mhm. ñun nag ñoo gën a soxla prévention ñun ñu amul moyen ñun suñu ginnaaw jotul suñu loxo. européens yi nga xam ne ils ont des moyens ils ont ils sur la prévention ils ont fait des bons ils ont des technique mais ils ont montré que c'est sur la prévention qu'ils ont sauvé les gens donc loolu foofu mooy wax ci do ay spécialistes ak ay formations il faut faire la prévention depuis les maisons l'école primaire les les lycées partout mais fii les les moyens de sauvetage basique tu prends cent étudiants mënuñu ko kon loolu dañu ko waroon jàng civisme au lieu ñuy dem di fecc ak musique euh, machin yooyu c'est des choses qu'il faut faire viens pour les médias bopp dañu doon exiger amatul benn publicité da am prévention sur la vie bala ngaa def sabar nga wone prévention sur le tabac bala ngaa won euh, leneen nga def prévention sur l'hypertension loolu dañ ko def loi dans le mën na nekk mm-hmm. balaa publicité normale bala moo jaar il faut am publicité préventive sur les maladies loolu moo mën a tax état bi du yàq xaalisam ni ñi di am santé te loolu mooy préserver dëkk waaye sant ko gërëm ko bu baax a baax ci OFT bi waaye tamit surtout si disponibilité bi moom moomu docteur Massamba Thiam ma fàttali ne moom la ñu doon dalal ci suñu émission bi di SOS santé docteur Massamba Thiam nag nekk spécialiste des maladies du cœur waaye tamit nekk ancien interne nekk tamit chef de service de cardiologie jaajëfal yéen yéen mbokk auditeurs yi fàttali woon na yéen ngi leen teewlu seen émission bi di SOS santé et Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Paul Mendy nekkoon ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité